Justement parce que Macky Sall, qui avait donc une fois flamboyance d'idées au départ, a été tombé dans ce piège de la gloire du pouvoir, de, de, la jouissance du pouvoir. Vous voyez, lorsque vous écoutez Macky Sall des années 2011-2012, au moment où il prenait le pouvoir, vous aviez le sentiment que c'était un visionnaire. Et je crois qu'il était de bonne foi à l'époque. Mais vous savez, le problème que nous avons avec nos dirigeants, c'est que une fois qu'il accède justement dans le fauteuil présidentiel. Vous savez, le pouvoir a ceci de captivant, de tentant que vous êtes entouré par des gens qui vous affublent de dithyrambes, d'éloges, de hurrahs, et vous donnent le sentiment que vous êtes un homme providentiel et que sans vous, le pays basculerait. C'est vous qui devez avoir la lumière nécessaire pour sauver le pays de l'ornière. Lorsque vous entendez tous les jours ces genres euh, de louanges, si vous n'avez pas un mécanisme psychologique et mental qui vous permet de défaire cela, de repousser ce genre de loges, vous finissez par vous forger un nouvel état d'esprit qui vous donne la conviction que sans vous, le pays lui-même n'existerait pas. Or, l'histoire montre clairement qu'il n'y a jamais eu disparition d'un homme d'État qui entraînerait celle d'un pays entier. Ce qui veut dire quoi Tout simplement que Macky Sall, aujourd'hui, est convaincu que sans lui, le, le Sénégal ne pourra même pas être un État, ne pourra pas être une nation, ne pourra pas continuer eh, de vivre heureux. Malheureusement, ayant basculé de ce point de vue. On peut la situation Sénégal euh, pour euh, dire non au troisième mandat voilà euh, oui à la libération des détenus politiques oui à un climat politique plus apaisée on est que l'on a man jàpp naa ne lu am solo contexte bi ñu il faut que nous wan le régime en place que nous dëkk bi nag wax c'est-à-dire que aujourd'hui le président Macky Sall est nekk dans son second et dernier mandat on est presque à huit mois des élections présidentielles du du Sénégal de février 2024 alors maa ngi dégg ndànk ndànk wax l'idée en tout l'idée de repousser les élections de deux ans, mais qui commencent à germer de petit à petit. Alors, il faudrait qu'on soit extrêmement ferme par rapport à ces dirigeants. Il faudrait qu'on soit extrêmement ferme parce que venir élire quand même le président Macky Sall, c'était très très clair. On avait un calendrier républicain à dara waru ko le 25 février 2024 dañuy dem ci ay élection ci premier tour élection présidentielle au Sénégal euh, lii nag fay wara rek lenn fay wara ne ñi nous jàppee askan bi j'ai envie de dire comme ay animaux comme ay mala jàpp nañ ne bu ñu xasee au pouvoir euh, wax yi nga xamante ne ñu ko doon wax yépp démb waratul nekk lu valable aujourd'hui parce qu'il y a un contexte qui voilà qui est présent et donc on est obligé de remettre en question nos propos d'hier ce qui fait que pour moi la mobilisation doit rester très forte non pas forcément des manifestations violentes mais je crois intimement qu'il faut maintenir la pression sur ce gouvernement jusqu'à ce que le président Macky Sall nous dise que ni voilà moom élection de di parce que le président Macky Sall war de très clairement et jàpp naa a eu ñu les élections de deux ans euh, jàpp naa ne aussi que ni Macky Sall nekk quatre euh, candidat en 2024 il dara lu nga xamantene qui politiciens yi dinañu ko rusloo rusloowe maanaam dootuñu askan lu leen dinañ ko def te dinañu jàppee seen ay jàpp naa ne nag loolu euh, fii lañ ko parce que nag dafa doy et dafa dafa dafa doy Sénégal ay politiciens di def lu leen ah bu ñu ñu en 2022, wax ñu 2023 wax ñu dégg ñu 2025 su jotee ñu ah la ma doon wax 2022 wala la ma doon wax 2023 bon ce n'est plus valable parce que le contexte a évolué le contexte a changé et je pense que il faut que ça s'arrête parce que tant que nous des citoyens yo nga des citoyens avant-gardistes nekk ay citoyens yo on est hyper exigeants par rapport euh, au régime politique yi nga en ñu ngi am ci Sénégal nous naa ne suñu réew du mësa soo leen demee ci France dem ci Canada dem ci États-Unis dem ci Europe d'une façon générale dëkk yi nga xamantane même dëkk yi ñu gëna a bu boo leen en Afrique du Nord en Afrique du Nord gis nga ni ce sont ay bañkat lañ dañu dañu nek ay résistants. dëkk yi nga xamantane tay ñoo la gëna développer moy dekk yi nga xamantane sen exigence démocratique fa la gënee forte voilà fofu la gëna a forte gis ngeen ci Tunisie bi fa sen président bi Ben Ali yàggee def lu ci 2010 révolution bu forte dafa am ñu daal di ko fay jëlee donc euh, gis nañ ko aussi si Égypte gis nañ ko voilà si yeneen dëkk aussi gis nañ ko si Burkina Faso avec Blaise Compaoré donc jàpp naa ne il faut qu'on maintienne la pression il faut que aussi képp ku nga xamante ne tey da nga war a nekk ci Sénégal ak koo mënti doon nga xam ne tu as en face de toi un peuple qui est averti le peuple sénégalais n'est pas un peuple violent à partir du moment où il y a des violences qui s'éclatent c'est parce que nit ñi dañu sës nit ñu dañu sës ba pare politiciens yoo ont ne à un moment donné dañuy foowee le peuple dañuy foowee askan bi ba pare di def lu leen neex et jàpp ne peut-être dara du leen ci parce que le Sénégalais c'est pas quelqu'un qui réagit voilà c'est pas quelqu'un qui réagit à la première attaque ñu maintenir la pression face au régime de Macky Sall won ko ne ko yow doo bokk ci suñu ay élections voilà euh, nekkoo ki nga xamante ne aussi da ngay sélectionner ay candidats non dañu la dénkoon juste des mandats mandat su jeexee nak da ngay dem nga abal ñu parce que mandat yi wala nguuru Sénégal donnoo ko si sa papa donnoo ko si sa yaay donnoo ko si kenn donc exigence boobu dafa war a forte dafa war nek nekk à un niveau incommensurable euh lool moy ben ñaarel bi moy da fay permettre aussi wan ñi ànd ak Macky Sall maanaam ñi and ak politiciens que ni aussi en même temps ce pays ne vous appartient pas parce que li nga xamantene ñu ngi koy reprocher Macky Sall mën nañ ko reproché ñëpp ñi nga xamantene ñoy and ak moom.

mais jàpp nit ñi nga ak Fall nga benn wax président de la république wala au niveau de la bu ñu jaayee 2 millions de cartes mën na permettre au président de la république de poser sa candidature en 2024 Voilà sax Ismaël Madior Fall la candidature du président de la république en 2024 c'est pas une question d'ordre juridique mais c'est plutôt une question d'ordre politique te may fàttali ne Fall ci 2012. Puis, Abdoulaye Wade di salfaañe la constitution au Sénégal moy ki nga xamantene ne dafa été ay téré diko les révisions consolidantes et les révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise et dans les révisions qui déconsolident la démocratie sénégalaise benn bi ci moy révision yi nga xamantene moy bi nga xamné modone djema nan le mandat de Abdoulaye Wade bi nga xamné mujjé def ci entre 2007 ak 2012 était hors de portée de la constitution sénégalaise Lolo, Ismaël Madior Fall qui en 2012 daf sur les révisions déconsolidantes en tout cas les révisions les réformes il a fait la constitution sénégalaise pour permettre à des présidents de rester au pouvoir c'est ce même Ismaël Madior Fall ministre de la justice du Sénégal qui lay la candidature de Macky Sall en 2024 n'est pas de l'ordre du droit mais c'est plutôt de l'ordre de la politique donc ñi nga le président le ministre de di les directeurs généraux ñi nga publicité naan Macky Sall amna na droit beneen troisième mandat wala naan le second quinquennat xaw ma na lañ koy wowe sen lexique bobu ñooñu ñoy ñi nga xamné ñoy gëna pousser les dirigeants à faire mandat boo la constitution sénégalaise mosu leen c'était le cas ak Abdoulaye Wade on se rappelle encore de ay Serigne Mbacké Ndiaye on se rappelle encore de ay Souleymane Ndiaye on se rappelle encore de ay euh, ay euh, tous les libéraux ay Farba Senghor yi nga xamantene tay nous ñoo doon wër Abdoulaye Wad, Abdoulaye Wade di droit à un troisième mandat donc je pense pour finir que la manifestation la mobilisation doit être très forte Nous devons dañu massivement pour won au président de la République et à son régime que ni moomu leen Sénégal doonu leen Sénégal et que dafa jot dafa doy que Macky Sall wax clairement que nous du beaucoup ces élections, yi ba clairement une benn ambition de proroger son mandat de deux ans parce qu'il y a benn motif légitime pour repousser le calendrier républicain